asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ngeen dal ak jàmm ci xibaar yi digg bëccëg yi bayeekoo QTV ak Q radio ba jagub tey bi ngeen di si ànd ak Xadijatu Koli ñu seeti bopp xibaar yi. ombele buñ ne si jamono ji OIC project bi mu ngi nekk di dem nag ci biir réew bu Gambie bi liggéey nag kilifa yaa ko nekk di def jëmale ko ci ndaje bu ñu war a am ci biir réew mi si at bi ñu nekk ci matuwaay googu QTV nag doxantu nañ ci yoon yi pour xool nag yokkute goo xam ne liggéey gaa ko nekk di am jëmale ko nag ci mbir moo xam ne askan waa koy laam-laamee lu war a toll si ñeent fukki nit yu nekk di liggéey ci jëwrin bi saytu wàllu àtte gi ci talaata bi ñoom ñoo commencé naka ñeent fanub ndaje matuwaay bi naka ñu jël ko pour gis ne naka yokku nañ xam-xam lu aju ci seen wàllu liggéey bi ndaw bi wuyoo si Baboucar Dia mu toll si ñaar fukki at ak juróom-ñeent di yëngu ci wàllu peinture moom mu dëkk sa Suukuta si jamono ji naka ñu bari ñu ngi koy bàyyi xel di bàyyi xel naka liggéey bu rafet bu mu nekk di def ginnaaw naka ba ab vidéom tasaaroo naka ci buntu xarala yi ci matuwaay googu QTV naka doxantu nañ ca sa Suukuta pour waxtaan ak ndaw bi xool naka matuwaay goo xam ne jël na ko jëmale ko ci wàllu liggéeyam. mbokk yi li doonoon bopp xibaar yi ñu taaxil bu ñu dellu see yaatal xibaar yi jot am ci bëccëgu tey bi si mbir moo xam ne nag askan waa ngi koy laam-laam mi jëmale ko nag ci yokkute bi yoon yoo xam ne nag projet coupe OIC bi mu ngi ko nekk di def ci biir réewu Gambie bi matuwaay bi nag ñu jël ko rek pour gis defaraat nañ yoon yi balaa ndaje mag gu war a am nag ci biir réewu Gambie bi ci at bi ñu nekk ci matuwaay googu nag QTV ñoom saa yu nekk doxantu bu ñu dee faral di def defaat nañ ko ci yoon yi pour xool nag yokkute goo xam ne projet baa ngi ko nekk di am jëmale ko ci seen wàllub liggéey bi ëmpale wuñ ne nag nit ñoo xam ne ñoo nekk di am moto ci biir a bari te nag xataay xam ne nag askan waa ngi koy jànkuwanteel mbir boo xam ne nag ñu ngi koo joytu surtout wa nag bu ñëwee ci yoon yu nekkee si Greater Banjul area bi ñàkk yoon gu baax ak itamit ñàkk yoon wu yaatu tax na nag ñu bari di joytu lu aju nag ci wàllub dem ak dikk bi si jamono ji nag jafe-jafe googu ñu ngi ko wéer nag si projet boo xam ne banqaasub OIC bi ñu ko nekk di def jëmale ko nag ci wàllub yoon yi pour naka yokk nañ yoon yi loolu naka si jamono ji askan waa ngi yaakaar ne loolu naka dina issi ab yokkute bu ñëwee naka si mbir mi tamit naka ñu ngi am yaakaar ne dina saafara jafe-jafe ñu nekk di jànkuwanteel ci wàllub yoon gi lu war a toll naka si ñaar fukki yoon yu ees naka la ñu war a samp si Greater Banjul area bi mu bokk ci naka yoon bu ñu naan Baatin Harding Highway bi yoon yi naka nañ leen yokk tamit naka nañ leen defal place goo xam ne naka foofu la borom tànk yi di dox Fally Fadera moom mu doon nag ku jiite wàllu jokkalante bi bu ñëwee nag si OIC secrétariat bi nekk si biir Gambie bi moom nag ginaaw doon gaaral kàddu mu ne amul benn ñaari xel na projet bi nag nañ ko pare balaa ndaje gi mu continué di wax ne nag si jamono jii ëmpale buñ ne nag accident yu dee am ci yoon yi mu ngi gën a bari te bakkan yaa ngi gën rot bu ñëwee nag ci yoon yi mu ne ci téeméer bi li war a toll si fukk ak juróom projet bi nag na ko wàññi mu continué di wax ne yaatuwaay yoon yi dina wàññi nag jafe goo xam ne askan wi loolu la nekk di jànkuwanteel bu ñëwee naka ci yoon yi tamit naka seenu project bi ñu ngi cee am naka ab yokkute. OIC naka seenu projet goo xam ne naka ñu ngi ko nekk di defar tamit naka am nañ yaakaar ne dina isi naka ab yokkute bu ñëwee naka ci wàllu gan yi surtout ma jëwrin boo xam ne moom mooy saytu naka wàll woowu ñu ne tamit dina doon mbir boo xam ne naka dina isi ab yokkute bu ñëwee ci wàllu koom-koomu réew mi dina saafaraal tamit jafe-jafe goo xam ne naka doomi réew yaa ngi koy jànkuwanteel bu ñëwee ci wàllu dem dikk bi Ibrahima Kamara moom mu doon ab taxi driver ginnaaw doon gaaral kàddoom wane na mbégteem ak kontaanteem ci liggéeyub yoon goo xam ne nag kilifa yaa ngi ko nekk di def ci biir réew mi mu ne lii naka dina wàññi jafe-jafe gu ñoom nekk di jànkuwanteel ci wàllub yoon yi tamit naka dina ubbi buntu pour ndaw ñi naka am liggéey mu ne maa ngi ñaan yàlla pour naka mu jàppale ñu wàññi naka accident yoo xam ne ñoo nekk di am ci yoon yi bu ñëwee ci biir réewu Gambia bi mu ne su fekkee ne naka yoon yi pare nañ yoon yi naka dinañ yaatu te tamit naka dem ak dikk bi dina yomboo mu continuer di wax ne tamit dina wàññi accident yoo xam ne naka ñoo di am ci yoon yi mu ne ñun driver yi saa yu nekk rek dañu war di bàyyi xel mbirub yoon wi mu ne waaye tamit suñu liggéey naka dina yomb bu fekkee ne yoon wi yaatu na tamit naka nekkul di mu ne tamit lii dina wàññi naka jafe-jafe goo xam ne ñu ngi koo jànkuwante ci suñu wàllu moto gi ndax naka ñàkku baaxub yoon gi tax na naka saa yu nekk suñu moto yi naka di am jafe-jafe Sëriñ Fallou Fall moom mu dëkkee sa Sinthiou Alaaji ginnaaw doon gaaral kàddoom wax na ne naka yoon bi bu fekkee ne naka pare na dina wàññi naka trafic block boo xam ne naka moo di am si yoon bi mu ne tamit dina wàññi jafe-jafe goo xam ne naka askan waa ngi koy jànkuwanteel bu ñëwee ci wàllub dem ak dikk bi mu ne am naa yaakaar ne naka yoon bi bu fekkee ne yaatu na dem ak dikk bi yomb dina isi naka ab yokkute bu rey bu ñëwee naka ci nit ñoo xam ne ñoo koy jëfandikoo li war a toll si ñaar fukk ak ñeenti weer la ñu wax ne naka projet bi si lañ ko liggéey pour pare ko naka ci biir réewu Gambie bi bu ñu ko paree naka si lañ war a am naka ndaje gu mag ndaje bi naka ñu tuddee ko Organisation of Islamic Cooperation Summit bi ñu gën naa xamee naka ci OIC ndaje gi naka ñu ngi ko fas yéene am ci dëkku bànjur gi ci at bii ñu nekk muy atub 2022 bi. lu toll si ñeent fukki nit yu nekk liggéey si jëwrin bi ñu dénk wàll àtte gi ñoom ñoo commencé ñeent fanum ndaje matuwaay bi naka ñu jëkko rek pour gis ne wecci wante nañ xalaat jëmale ko naka ci liggéey bi tamit naka yokk seen xam ci liggéey gu ñu nekk di def jëmale ko ci wàllu àtte gi matuwaay bi tamit ñu jël ko rek pour gis ne seen liggéey bi àndale nañ ko ak satta yoo xam ne naka banxaasu bitim réew yi yooyu lañ nekk di jëfandikoo ci seen wàllu àtte gi matuwaay bi tamit ñu jël ko rek pour gis ne dooleel nañ seen bopp ci ni ñoo taxawoo lu aju ci àq ak yelleefi doomi aadama ak tamit mbir yoo xam ne dafay isi yokkute bu ñëwee naka ci tund yu nekk ci biir Afrique ndaje gi naka wal sax yokkuwante xam-xam gi matuwaa bi naka dañ ko jël rek pour gis ne indi nañ naka ab yokkute ci liggéey yëpp àtte gi gis na naka seen liggéey bi jaarale nañ ko ci yoon ak itamit def ko naka ci anam goo xam ne boobu la askan wi séentu bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xam ne naka ñoo oote ndaje bi ñu ngi wax ne ndaje gi naka dina préparé ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yu nekk di liggéey ci wàllub àtte gi pour naka am naka ab gestu gu tar jëmale ko ñu ngi ko war a def wala sax si atte goo xam ne ñu ngi ko war a def tamit naka na leen jàppale pour ñu àtte lu aju naka ci wàllum njuuj njaaj surtout ma naka bu ñëwee si report goo xam ne naka TRRC bi ñu ngi ko génnee Dawda A Jallow moom mu doon attorney general doon it ministre bu ñu dénk wàllum njub gi moom wax na ne naka ministre gi si jamono ji naka ñu ngi taxaw pour gis ne dëgg ji naka feeñ na mu ne matuwaay gi tamit dañ ko jël rek pour gis ne def nañ ab gu tar génnee naka ab report bu dëgg report goo xam ne naka mooy isi bennoo isi tamit li nga xam ne naka mooy njub bu ñëwee naka ci report goo xam ne kuréelub TRRC bi génnee nañ ko mu ne naka government seen waaye paper bi si jamono ji naka am nañ yaakaar ne léegi tey naka ñu àtt ci attorney general ba te rek mu continué di wax ne TRRC bi seen report goo xam ne naka génnee nañ ko am na yaakaar ne naka ñu bari dinañ leen teg daan te daan yooyu naka dañ ci war a gestu jël ji naka ab matuwaay gu jub mu ne looloo tax naka ñu ngi yokk xam-xam seenub liggéeykat yi Samuel Adé moom mu doon legal officer doon nit koo xam ne naka mu ngi bokk ci yokk xam-xam gi ginnaaw doon gaaral kàddoom wax nañu naka njëriñ goo xam ne dina ko jëlee naka si ndaje goo xam ne boobu la ñu nekk di def ñeneen ñoo xam ne tamit ñoo fa gaaral seenu kàddu ku ci mel ni Gaye Sow moom mu doon executive director of Institute for Human Rights and Development in Africa teewal fa naka banxaasub US Embassy bi ak tamit ki nga xam ne naka mooy American Bar Association country director bi ñi ñëpp daje nañ fa ak Justice Minister bi ak ñi nga xam ne naka ñoo nekk di saytu justice and right programme ñeenti fanum dajee gi ni am nañ yaakaar ne naka ndaw yi ci bokk buñ fa pare seen xam-xam naka dina màcc ci gëstu gu ñu fas yéene def jëmale ko naka ci report TRRC bi tamit naka bépp ate goo xam ne naka ñu ngi ko fay def di dina doon mbir boo xam ne naka dina jub tamit naka dina ànd ak luwaay réew mi ndaw bi wuyoo ci Baboucar Thiam dëkk sa Suukuta ñu ne moom nag ab pentuurkat la ndaw ji nag mu ngi toll si ñaar fukki at ak juróom-ñeent QTV naka dem nañ seeti ko sa Sukuta bi ñu gisee naka ab vidéo boo xam ne génn na ci buntu xaralay ñu bari naka naw ko di rafetlu naka liggéey goo xam ne boobu la nekk di def ak itamit di rafetlu jom goo xam ne naka mu ngi ko boole ci liggéeyam QTV si seeti goo xam ne naka def nañ ko Baboucar mi dañoo waxtaan ak moom jëmale ko naka ci mbirum jaar-jaaram Baboucar moom naka wax na ne doon na ndaw goo xam ne dafa jànkuwanteel ay jafe yu rëy si jamono ndawam mu ne moom naka doon na koo xam ne muy jël tànk pour commencer naka peinture dafa doon mbir boo xam ne naka lu métti la woon ci moom ndax naka ñaari mbir moo nekkoon ci kanamam mooy pour moom mu continuer njàngam gi bàyyi naka rakam yi pour ñu ñàkk a jàng wala mu fayee rakam yi ñoom ñu jàng moom naka mu bàyyi jàng dem uti liggéey mu ne ñaari xalaat yi moo nekkoon naka ci xelam gi mu ne te lu ko sababu naka mooy ne dafa bàyyi ko naka ci famille goo xam ne seenub loxo jotul seenub baabu Baboucarr caam moom naka si jamono ji ab peinture kat la ginnaaw mu jëlee matuwaay bi pour génn school pour doole naka ñi xam ne ñu bari ñu ngi koo rafetlu ginnaaw naka ba ab vidéo génni naka ci buntu xaralay di wane naka jom ak itamit rafetal goo xam ne naka mu ngi koo def ci wàll liggéey gi Baboucarr moom naka doon na koo xam ne daf dee peinture daf dee def tamit li nga xam ne naka mooy drawing mu doon koo xam ne naka mu ngi dëkk sa diwaanu Sukuta bi ëmpale wuñ ne naka si jamono ji nu vidéo bi tasaaroo yi naka ci buntu xarala yi ndaw ñu bëri naka ñu ngi bugg a mel ni Baboucarr mu tax naka ñu waxtaan ak moom pour mu wax ñu naka jaar jaaram bu ñu sukkandekoo ci kàddu yi mu moom naka mu ñoo xamal ne métier naka doon na mbir boo xam ne naka mbir bu am solo la mu ne bu fekkee de sax mun na jeexal sa njàng mi da nga jàpp naka ci li nga xam ne mooy métier mu ne moom naka daf di dugal loxoom si façon métier yu bari mu ne ndax naka papaam doon na koo xam ne daf daan jànkuwanteel jafe-jafe ci wàllu koppar te it doon na na koo xam ne naka daf daan yëngu ci wàllu métier gi lu bari mu ne moom naka matuwaay googu la jël maanaam dafa topp ci tànk papaam ba tey naka mu doon lu mu doon mu ne moom naka ba muy commencé ab apprenti la woon ne yàlla jàppale ko naka ba mu yem ci fii mu toll tey mu ne koppar gu ndaw gu mu amoon boobu la jël naka commencé ko business koo xam ne naka boobu la nekk di def mu ne moom doon na koo xam ne naka jaay na galaas jaay na sax kabaa si jamono joo xam ne naka mu ngi commencé mu ne daf dee def naka plomberine tamit naka amoon na jëmmi jamono joo xam ne daf daan jaay kafe tuba mu ne matuwaay googu tamit daf ko jël rek pour gis ne doole na naka rakkam yi ak i tamit waajuram yi mu ne buntu goo xam ne naka am na ko tey metti woon na trop balaa moo yegg si naka fii mu yegg si mu ne nit xamut dund goo xam ne naka boobu la jaar mu ne metti goo xam ne naka def na ko moom sax mënut koy wax mu ne waaye naka si jamono jii maa ngi sant yàlla ci matuwaay goo xam ne naka jël na ko pour jox ma naka xelaat bii may def naka ab peinture askan wi naka rafetlu ko mu continuer di wax ne painting bu mu nekk di def daf ko di jàppale pour bu mu xelaat lu bari mu ne ndax naka bu fekkee ne mu ngi drawing xel mi naka ca foofu rek la dee nekk daf dee tax naka du xelaat leneen ndax xelam gi naka ci benn mbir la moo nekk mooy lu mu nekk di def mu ne moom naka daf dee def ab gestu jëmale ko ci liggéey bu mu nekk di def daf dee dugg ci buntu xarale yi pour xool naka vidéo yi seet naka moom it nu moo def naka pour gis ne am na ab yokkute ci lu moo def mu ne moom naka jaar na si jafe-jafe yu bari mu ne waaye naka ci peinture bi la moo gisee boppam ndax naka peinture bi daf ko dee may pour bu mu lu bari tamit naka daf ko dee jàppale naka ci lu néew loo xam ne daf see mën a dimbale boppam dimbale si waajuram yi ak rakkam yi Babacar nag mu ne moom ci liggéeyam bi am na ay góor ak jigéen yoo xam ne naka ñu ngi ñëw pour jàng métier ci ronam mu ne waaye naka ñu si bari ay góor leen yoo xam ne naka ñu ngi bayeekoo ci dëkkub Suukuta mu ne xale bu jigéen bi naka Brikama Ba la bàyyeekoo CRR mu ne pour ñëw naka jàng métier si ronam mu ne mu ngi leen di jàngal ndax naka moom bugg naa gis xale yooyu ñu doon naka ay mag yu am jom ëllëg mu ne bëggoon naka ñuy tuuma ranke wala sax di bàyyee nde ko ci yoon yi mu ne naka moom dafa bugg xale yooyu ñu taxaw seen bopp mu ne bugg nag xale yi ñu jaar si jafe-jafe goo xam ne naka jaar na fa mu ne naka mu ngi def kéemtulaay kàttanam pour gis ne jox na leen xam-xam gu màcc ngir ñu mun a taxaw seenu bopp ëllëg Essa Diatta moom mu toll si fukki at ak juróom-ñeent moom it mu doon naka ab artiste ginnaaw doon gaaral kàddoom wax na ne naka drawing boo xam ne naka boobu la nekk di def doon na mbir boo xam ne naka ñu bari ku ci mel ni Baboucar si la nekk di yëngu te mu ngi cee gis naka yokkute mu continuer di wax ne naka Baboucar indil na ko ab yokkute torop ci wàllub dundam tamit naka indil naka ab wéccite ci wàllub dundam. mu ne moom it mu ngi jéem a fexe naka pour def yeneen métier mu ne am na salon tamit naka def day try naka pour def li nga xam ne mooy musique mu ne tamit am na ci yeneen métier yu sew sewaan yoo xam ne naka def ko dee def pour am ci naka dara mu ne moom lu mu bugg rek mooy pour jàppale boppam génnee naka jafe-jafe goo xam ne waajuram yaa ngi koy jànkuwanteel mu ne liggéey goo xam ne boobu la nekk di def ak Baboucarr Essien naka ab wéccite ci dundam mu ne si jamono ji naka mu ngi am ab néew goo xam ne daf ko dee mën a jàppale pour gis ne jënd na jumtuwaay yi mu soxla ngir mën a def naka peinture gi mu ne mu ngi cee sant yàlla Baboucar moom naka ñu ngi ko gënee xamee ci doon doon koo xam ne naka ab peinture kat la mu amee naka bitik di print ay baana tamit di peinture di print naka ay t-shirt ak i tamit yeneen i mbir moom naka doon na koo xam ne ay ndaw yu bari si jamono ji ñu ngi bëgg a mel ni moom pour commencer naka ab shop maanaam ab bitik goo xam ne naka dañ see mën a ngëbandoon si jamono ji naka ndaw yu bari ëmpale wuñ ne naka ñu ngi bëgg a liggéey waaye naka amuñ naka fu ñoo jàppande ko Baboucar naka doon na koo xam ne mu ngi ubbi buntam pour jàppale ndaw ñi te moom naka ci biir waxam xamal nañu ne dafa bëgg a mel ni Mouhamed Dia moom mi nga xam ne naka mooy ci chairman bu Q Group ndax naka mu ne Mouhamed Dia doomi réewi Gambie la te naka fii la juddoo fii la màggee tamit fii la tekkee mu ne moom naka taxawaay googu la bëgg a jël pour gis naka doon na comme Mouhamed Dia ëllëg jàppale naka ndaw yu bari jàppale néew di doole ak itamit ñi nga xam ne naka ñooy aji télé yi Standard Chartered Bank ñu doon banxaas bi yëngu ci wàllub denjum xaalis ak itamit di yëngu naka ci wàllub yónnee ak jël xaalis ñoom naka ginnaaw ba ñu liggéeyee ci biir réewu Gambie bi lu toll si téeméer ñaar fukk ak juróom-ñetti at bëgg nañoo toxu naka dem ci yeneen i dëkk matuwaay bi naka ñu ne dañ koy jël rek pour gis ne yaxanal nañ ci seen wàllub njula gi ubbi seen bunt pour gis naka am nañ a profit ci yeneen dëkk yi ci waxtaan goo xam ne naka am nañ ko QTV bank chief executive officer bi moom naka mu ne mu ngi xamal seen client yi ne nekkuñ ne dañoo tëj seen banque bi de seen liggéey bi naka dina continuer waaye naka lu gën a bari dañ koy def naka ci yeneen dëkk ndax naka dañu bëgg a yaxanal seen jula gi tamit naka bëgg nañoo am ab yokkute looloo tax naka ñu bëgg a toxu bank operation bi ñoom naka si jamono ji ñu ngi wax ne réewu Gambie bi naka dañ ko bëgg a bàyyi pour doxu naka ci yeneen réew yi ngir gis naka yaatal nañ seen loxo. Cuks moom mu doon chief executive officer bi si Standard Chartered Bank ci biir réewu wax na naka si jamono ji banque bi ñu ngi def seen kéem tolluwaay kàttan pour lëkkaloo ak kilifay pour gis naka bàyyi nañ dëkk bi su fekkee ne sax am nañ ko mën a jënd naka seen banque bi nañ ko ko jaay ngir gis naka toxu nañ ci beneen réew mu ne banque bi dafa nekk di xamal askan wi rek ne dañu bëgg a toxu dem naka ci yeneen réew mu ne waaye naka commencé nguñ process bi maanaam commencé nguñ dara daanaka dafa nekk rek ci seenub xel ragal banque bi naka na taxaw seenub àq ak seenub yelleef te bi naka dina fexe pour gis ne bu ñu demee naka bay def naka su dul noonu képp koo xam ne rek yaa ngi fa am sa xaalis dinañ la ko delloo bu soobee yàlla mu continuer di wax ne tamit banque bi daanaka dañ nekk di xamal askan bi ne ñoom naka na ñu toxu waaye naka defanguñ benn préparation pour gis naka génn nañ ci biir réew mi mu ne banque bi naka ñu ngi liggéey si yeneen ñeenti dëkk yu nekk ci biir Afrique muy Cameroun Angola Zimbabwe ak Sierra Leone mu ne ji dañu bugg a demee ci Middle East muy ci dëkkub Libanon ak Jordan banque boo xam ne nag ab British moo ko ubbi banque bi nag si jamono ji ñu ngi bind nag ab bataaxal génne ko di xamal askan wi ne dañu bëgg a demee nag ci Middle East countries yi mu doon nag dëkk yoo xam ne ñoo nekkee ci penkub Afrique bi matuwaay bi ñu ne dañ koy jël rek pour gis ne am nañ ab yokkute nag ci seen wàllub liggéey bi yéene goo xam ne nag boobu lañu am si jamono ji nag ñu ngi ko fas yéene tasaare mooy pour gis ne nag seen baaxaas bi tasaaroo na si fukk wala fukki dëkk ak juróom yu nekk ci biir àddina si Standard Chartered Bank ñoom naka xamee nañ leen ci wàllu liggéey gi mu jëmee naka ci mbirub dencub xaalis ak it yónnee ak ki jël xaalis banque bi naka yàgg nañoo liggéey ci biir réewu Gambia bi te si jamono ji naka ñu bari ràññee nañ leen banque bi nag ñu ne commencé nañ seen liggéey bi ci biir réew mi si atub 1894 Standard Chartered Bank ñoom naka ci report goo xam ne naka génnee nañ ko ñu ne seen banque bi naka ñu ngi continuer di fi liggéey ba si atub 2002 si lañ tuddee naka seen bopp Standard Chartered Bank si jamono ji naka ñu ngi fas yéene lëkkaloo ak banque yu nekk sa bitim réew pour gis ne ta saare nañ seen loxo tamit naka yaxanal naka loo aju ci seen wàllum njëriñ. mbokk yi xibaar yi lañ leen fi amaloon ci bëccëgub tey bi yaatalee ngeen di doon ànd ak Xadijatu Koli di leen jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu may ñu ñeen doog jàmm jërë ngeen jëf ci topp bi wasalaam